benn kàddu rek waxuma ci te ñu foog ne leneen la ndax dama bokk ci ñi invité journaliste yi ak ñi nga xam ne ñu fi toog conférence de presse la point de presse la boo xam ne ne Ablaye Seydou Sow ak Farba Ngom mais moom rek doyoon na ci sët ak barke ndax déglu ngeen kàddu yi ñu fi wax macha allah waaw donc merci Abdoulaye mais mbooloo mi ay gërëm journaliste yëpp ñi ñëw ak ñu ñuy seetaan man euh, am na loo xam ne ne dama bëgg wax ak yéen il faut ñu waxante dëkk réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk opposition pouvoir réew mi sénégalais yëpp a ko bokk ku mu doon rek tant que sénégalais wala sénégalaise ci nga bokk mais lu tax ñuy bëgg rek ku mel ne Ousmane Sonko saa yu yëkkatee kàddu mu waxul loo xam ne du dëgg parce que dama tàmm déglu ci ay kàddam wala ci ñi ko jegee yenn saa yi saa yi ma ñëwee man xam nga dama indi ay affaire di ci yi muy wax te du xam fan laa ko jëlee bi ci njëkk rek may groupe de whatsapp bi nga xam ne da koy coordonné mooy administrateur bi génn na ci ñu bari loolu xamul fan laa ko génn na ci ñu bari ñu nekk conférence des leaders parce que dañ ko doon wax dëgg bëggul ku koy wax dëgg problème mu dictateur yaa ngi koy commencé jëf di ko doxal ci moment bi nga xam ne opposition nga nekk nekk un chef de parti kon nag yaakaar naa ci bi nga xam ne ne yaa ngi koy ut boo ko doonee musiba la ci réew mi mais Sénégal yi xale yi laay waxal lu ngeen conf euh, point de presse bi mu doon def dafa xale yi préparer leen mobiliser leen mooy lan kaay la ñu dem xeex lan la ñuy lan moo fi ne ba nga xam ne dañ koy xeex mais loolu laa ja man loolu moo ma jaaxal di mobiliser di préparer loo xale yi di dugg ci seen moyen di wax ak ñoom il faut ñu delloo ci seen xel Sénégal benn bopp la kenn mu cest à kenn ku ci dox bay ut réew mi Sénégalais yi nga koy utal mais yaakaar naa du sa bopp ci sama yaakaar kon nag lu tax ngay yëngal xale yi sénégalais yi di leen préparer loo ci loo xam ne ne mbirum Sénégal la wax dëgg yàlla du loolu kaay la ñu dem xeex nga bëgg a jël appel di woo xale sénégalais yëpp allez yi se mobiliser se préparer ah Ousmane Sonko ñu convoqué ko justice loolu du problème mais la nga xam ne du problème ci sama yaakaar man le ministre Abdoulaye Seydou Sow wax na ko am nga problème justice xam nga ne justice mooy condamné. am ñeneen nit ñi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi justice tere na leen ñu nekk candidat yow xamoon lan la la justice di tere d' abord ndax di nga nekk candidat parce que en 2019 Ousmane Sonko a été candidat jël troisième aux élections présidentielles loolu droit am la est ce que jamono yooyu nit yëkkati na fii kàddu wax lii wala laa ndax amutoon même bu doon day lakkatu fenn sax feeñu toon boobu amutoon benn problème ak justice mais lii nag fu ñu toll nii mu am problème ak justice te problème justice yi amul problème ak état mu leer amul benn problème ak état amul problème ak état beneen sénégalaise boo xam ne ne citoyen la comme moom moo jël plainte am déposé ko au niveau quand même de la justice loolu daa war a leer Sénégal askan yëpp xam même ñi ànd ak moom dañu war a appeler à la justice mu leeral mbir mi pour que candidature mu ne légitime loolu yaakaar naa ko kon nag loolu mu ngi noonu mu nekk mbir moo xam ne Sénégal yëpp ñu ngi koy xaar léegi nag ci sama yaakaar ñu ngi doog a génn ci élection législative au moins un ak ak nangam des na ci élection présidentielle bi nga paree def sa point de presse bu një bu bu njëkk attaqué ñun waa Fuuta ak suñu résultat bourrage dina tontu nañ ne ba mu saf-saf mais bi mu bi ci waxaat encore à presque quinze jours ou vingt jours des élections législatives au lieu ngay jël kàddu di wax ci loolu li nga xam ne ne ñu ngi ciy génn motul sax après les résultats officiels mi nga xam ne tribunal joxe na ko kenn dégluwu la ñu ngi yaakaar ne seen de point de presse loolu ngay wax mais di waxaale ay wax yoo xam ne ne da ngay jël kàddu attaqué armée mais loolu quand même sénégalais yi da ngeen ci poser question armée corps yëpp insulté nga armée bi wax nga gendarmerie jaar ci seen quand même général au commandant wax ci police yooyu yëpp ci corps yi nga xam ne ne sénégalais yi ñoom ginnaaw yàlla seen nekkin kaaraange Sénégal la te nga bokk ci Sénégal ñi muy aar ci biir réew mi loolu boo jëlee kàddu ñoo ñooñu ngay wax loolu sénégalais war nañu poser ay questions léegi nag li mu doon wax yëpp mu ngi doog egsi ci armée bi wax nga kilifa diine yi laal na journaliste yi amul kum fi bàyyi bu ñuy wax te yàlla tax ndax kooku mën nañ koo bàyyi noonu rek mu doxal taw taxaw di wax lu ko neex doxal lu ko neex rek ñu koy bàyyi noonu mais quand loolu on doit se poser des questions ah on doit se poser des questions euh, ci ci encore comme ni ko Ablaye Seydou Sow waxee notre camarade mi nga xam ne ne ah nekkoon DG Goudre l'axial PCAO Sayet la suma juumul boo amee problème ak justice justice téye di xool di saytu ndax liñ ko tuumaal déggal walla du dëgg ndax kooku du responsable bu mag ci biir ci biir réew mi ki fii ne képp ku fi ne ci biir réew mi kenn kenn laa la wax amu ci dayo walla magaama boo xam ne ne bu la yoon soxle doo ko wuyu impossible il faut que encore ñu xam ne ne armée armée yaakaar naa suñu kaaraange réew la loolu moom mën nga laal ku ne mais ñooñu dañ leen war a bàyyi tout tranquillement Macky Sall on peut comprendre même s'il président de la République il est un homme boo jëlee sa kàddu jëmle ko ci moom on peut comprendre mais jël sa kàddu di ko jëmle ci armée ñi nga xam ne ginnaaw yàlla moom moo yor kaaraange réew mi nekk ci frontières yi suñu jàmbaar yooyu nga xam ne dañuy yendu di taxaw suboo ak ngoon rien que pour di aar kan bi ak sénégalais ak sénégalais yi ñooñu lu ñu mérité mooy c'est d'encourager de féliciter mais pas di leen attaquer bu ñu waxte yàlla tax mais ci wàllu encore courage loolu Ablaye Sow leeral na ko di jël armée sénégalais sénégalais nekk pays bi nga xam ne réew bu souverain na yor lépp lu réew di war a yor ba ñu toll tey ci wàllu ci njiitu Macky ñu am image boo xam ne ci biir réew mi Afrique yëpp avant même muy nekk union président union africaine xam na ne ban image la Sénégal yor ci biir bitim réew loolu mu nekk lu am solo ngeen xam aussi courage bi Macky Sall yor. ñu naan France da koy diriger wala dugg fi génn fi président Obama ndax ñëwul fii ci biir Sénégal Macky sa recevoir ko fii ci biir palais mais dafa jël kaddu assumer sa position de dire tant mu ngi jiitee réew mi continuer di jiitee réew mi te kooku dafa bokkoon ñoom li nga xam ne ñoom dañ koy cautionné di ko ne ci la jël position am directe pour dire à l'opinion ko ci kanamam wax ko ci ginnaawam du publication communiqué wala leneen daf ko ne tànk maa ngi nii jiite réew mi francais la ko wax ñu koy traduire en anglais courage boobu politique Macky Sall yor na ko pour dire que tànk maa ngi jiite réew mi kenn du fii wax dëgg yàlla euh, euh, euh, doxal mbirum góor jigéen leeroon na yaakaar naa ko Macky ku am courage boobu wax ko ci kanam Barack Obama kooku kenn obligé wu ko kenn influencé ko courage bu ma mënu koo assumer loolu du xel wala ku xam Macky Sall ku nekk rek xam na ne moom buy jël engagement de koy jël librement nit la koo xam ne noonu la noonu la suñu dogal yàlla dogal mu mel et puis encore nekk opposant ça ne veut pas lu la neex wax lu la neex def moi je crois que da nga opposé ci ñiy jiitee réew mi mais opposé woo ci ñi koy yor cest à yor yorin bi du pouvoir politique bi mais ñi nga xam ne ay police ay gendarmerie ay douane ah ak ku fi nekk nekk corps boo xam ne ni dafa bokk da bokk si ñuy aar Sénégal ñooñu loo yor kàddu musuñu déglu benn homme politique bi fi daan nekk di ut réew mi am ko wala amu ak ñaata sénégalais lañu amoon fi ñu yor ay parti politique ñaata sénégalais lañ fi am ci ñi nga xam ne ni ñu ngi doon ut réew mi amul kenn koy ut réew mi ni ko Ousmane Sonko di ute loolu mooy lan ngir fitina boobu jël kàddu di wax police di wax gendarmerie ah di di di wax ku ne ah, di wax sëriñ si di wax journaliste yi ba ñëw ci nag léegi li nga xam mooy suñu armée loolu nag sénégalais dañ ci war a wax en li nga xam ne am na solo ah, Farba moom du juge du magistrat du lara homme politique la ci wàllu candidature loolu mbir la moo xam ne ne on suivra ce que la justice loolu conseil constitutionnel li ñu ci décidera mais avant ñu fay egg si quand même d'être candidat ci moment ñi nga xam ne waroo nekk candidat wala war nga nekk candidat am nga problème boo xam ne ne sénégalaise nga amal problème aji Sarr Adja aji Sarr laa koy waxee man léegi Adja aji Sarr waaw Adja Adji Sarr nga am problème ak moom ndax yéene naa ko mu dem màkk bu ci yàlla àndee heure bu paree li muy dox noonu dinaa ko utal billet màkk xëy na mu dem mu dem aji quoi Adja Adji nga am problème ak Adja Adji Sarr léegi boo amee problème ak Adja Adji Sarr problème boobu jeexul parewul ah ci mbir boobu nag ñu pare ci élection nga jël kàddu au lieu ngay set mu da ngeen mus a dégg ci limite safee gémmiñ di wax yëpp di saaga mus naa jël kàddu tontu ci mbirum Adji Sarr ci opinion publique lu tax loolu doo neex nga lammiñ bari nga wax bëgg ngaa lu tax Adji Sarr bi lay tuumaaleel mënoo ci indi tuuti éclaircissement yéen journalistes yi tamit comme dafa chaque semaine chaque vingt jours dafay woote ay point de presse lu tax du ngeen ko ci interpellé yéen saa yi xanaa amu leen courage boobu loolu jaaxal dafa war a leer dafa war a leer nee nañ ko Adja Adji Sarr yéen journaliste yi lay waxal Adja Adji Sarr li gars yi ni lay waxee doyul na ci tontu tuuti même bu dee one minute ñu xam ne au moins amal na ko tontu comme dafa rëy Lamine ah dafa rëy Lamine di wax rek chaque seconde chaque weer chaque trois semaines di organiser ay de presse nañ ci mus a wax mbirum mam ak Adja Adji Sarr avant sax muy dem justice ci wàllu politique mu tontu tuuti comme accusation la accusation boobu leeragul xamaguñu aji la wala moom moo am dégg yéen journalistes yi dee leen ko ci tuuti interpellé bii baa bu leen wooyee point de presse ñu ngi xaar ngeen même bu ko waxul ngeen interpellé ko ndax mu indi ci tuuti leeral loolu dafa am solo trop waaw en man li may wax daal sénégalais yi xale yi laay waxal man li ma ci gën a mooy wala li nga xam ne gën nañ ma ci def problème mooy nga jël sa kàddu di def sa point de presse di déclarer sa candidature en tant que homme politique waxoo waa Pastef parti bi nga xam ne moom nga jiitee mais di wax sénégalais yi préparer leen ñu préparer wu ci est-ce que warul dem wuyu justice wala wuyu war naa wuyu dem justice man question boobu dama koy poser sénégalais yi war na wuyu wala warul wuyu comme war na wuyu nag loolu loo ci préparer ay nit loo ci préparé ay nit demal préparé nga dem wuyu man mii man sama jéemu bopp en 2010 bi police ñëwee sama kër derkale di ma wër ma ñëwaat fekk leen ñu dem fekk ñu ma foofu xaaruñu ma ba ñu ñëw jël ci ma wala bu ñu indil ma convocation man maa taal sama oto directement ak sama chauffeur dem directement dem wuy ji police commissariat central jamono yooyu jotuma convocation boo xamee ne ñu ngi lay wër justice def la soxla wala police gendarmerie yi nga xam ne ni ñoom leeral askan bi leen fi nekk ñoom ban intérêt la ñu am ci jàpp koo xam ne wala téye koo xam ne ne dafa toog ci dëkk te ñoom ñoo war a àtte dëkk bi amul solo dama dem wuyu ji ma ñëw foofu sept heures du matin falaa toog ba dix-neuf heures et quelque toog ñuy wax ak man traumatisé wu ma déstabilisé wu ma question yi ma doon posé dama ciy tontu mais ndax duma sénégalais ah ndax waruma wuyu pour wuyu pourquoi ça Ousmane Sanko dafi gën nit ñi walla daf ñu ëpp ndey ëpp ñu bàyyi mooy kan ku fi gën waaw ah, kon nag loolu yàggul ne gis ngeen ni ko ni leen ko waxee ki nga xam ne dafa bokk ci responsable bi gën a mag ci biir euh, euh, euh, coalition Benno Bokk Yaakaar wala parti bi biñ ko lu mel noonu dem na wuyu ji mun ci loxo yoon heure bu atte jotee day leer moom it mooy kan ba nga xam ne du dem wuy ji xanaa moom koo xam ne ëllëg bëgg ngaa doxal réew te yoon xalaat nga di ko doxal man ci sama xalaatu bopp buñ la woowoon sax yaa war a dem war am bu rëy dem wuy ji leeral lii xew loolu dafa am solo en tout daal euh, li gën a garaaw attaqué Macky Sall moom ci la dëkk ñun suñu genre yi ku laal Macky Sall ñu dal sa kaw on cherche même pas à comprendre je sais que ma position c'est la position de Ablaye Seydou Sow te tamit mu nii di jógee Kaffrine man ma jógee Matam ñu tas fii di organiser conférence de presse du ay dara du ay calcul politique du leneen rien que ñun ku wax ma ci Macky Sall ñun ñaar am nañu conviction yi nga xam ne kenn ku nekk si ñun Macky Sall mooy suñu leader ginnaaw yàlla ak yonent bi képp képp ku ko mos a laal ci àdduna rek jël suñu position wone suñu position kon nag dama leen di wax sénégalais ak sénégalaises yi xale yi laay waxal moytu leen boobu appel bi mu leen di appelé di wax aussi la coalition Benno Bokk Yaakaar waxuma seulement APR yéen tamit ci seen jëmmu bopp jóg leen jot dafa jot duñ ko bàyyi rek muy wax Farba Ngom di tontu wala Ablaye Sow wala les cadres il faut ngeen jóg wax ak moom wax ak réew mi wax dafa jot kii duñ ko bàyyi rek muy lancer ay appel di yàq xelu xale yi te xale yi ñu ñëpp ñun ñoo leen jur ay suñuy doom lañ suñuy jarbaar lañu suñuy rakk lañu ñu bàyyi xel ci jooju pour ma mën a wax ak ñoom parce que am na loo xam ne boo buñ la balaa nga koy comprendre mu nekk lu trop tard dañ ko war a xoolaat avant mu nekk lu trop tard xale yi yéen laay waxal toujours man ci loolu laay insisté bàyyi leen seen xel élection bu jotee am ngeen liberté dem sànni carte ku leen neex loolu leer na mais comme élection jotagul kaay la ñu dem rayante kaay la ñu dem xeet ndax man ma mucc loolu fu ngeen ko gisee bàyyi leen ci xel lool man loolu laa leen di wax te tamit li ñu wax ci waxu armée Ablaye Seydou Sow tontu na ci tontu boo xam ne ni xëy na sax moo ma ci ëpp xam-xam mais xam naa mbirum lenn rek France ak beneen réew moo ci yem puissance mondiale États-Unis la Barack Obama bi fi ñëwee teewule Macky Sall am courage wax na xalaatam ak li mu bëgg ak li nga xam ne bañ na ko loolu ci kanam askan bi yëpp télévision direct la ñu koy seetaan waxuma la France loolu dafa war a leer nit ñi xam ne ne ah, position de Macky Sall mbir la mbirum justice nag tant que leeroo ci rien que pour que pour ngeen xam li tax muy wax ne candidat la est-ce que jamonoy candidat dafa jot nga koy déclarer moment politique jeex na léegi législative lañ jigéen présidentielle kenn waxagu ko kenn fixé gu ko da ngay xaar ba ba réew mi ba ñu fixé élection présidentielle nga doog wax sa candidature dafa xam ne ni du mucc ci dem wuy ji à la justice li muy wax noonu rek la mi ñëpp tàmpet la moo gën a nekk buxat ci aduna laa la moo kan commencé di saalik di naan appelé à sénégalais yi xale yi ah préparé leen lan la ñuy préparé on prépare ay convocation boo xam ne ne bi ngay dem di maase wu bi ngay dem di defar sa yaram bi ngay dem di xool sa bànneexu bopp sa bakkan topp la kenn fekke yu ko te ñu lay ñuy bëgg nga leeral loolu kaay leen ngeen dem préparé lu leer ah foofu leer foofu leer maase maase normal ñu ngi lay ñaan yàlla sa ndigg wër ku fi maase maase boo xam ne dafa rax leneen nag kooku bu leeral ñëwee yaa koy leeral sa bopp nag loolu kenn du ko leeral ndax li ñu doon jëlee ci wàllu bare affaire bopp la daa war a ñëpp maase wu massage bu normal góor ak jigéen ñëpp dañuy maase wu ñun waxuñu dara ci ñuy maase ndax loolu seen liggéey la dañ ci tedd am defar ci seen dund kuy maase wu maase normal sa ndigg bi metti wala sa mbàgg yàlla na wér mais ki nga xam ne da ngay maase wu te sa massage rax leneen nag plaisir foofu yaa ko doon ut da ngay leeral sénégalais ak sénégalaises li ma doon def nii maa ko def boo xam ne courage de dire loolu mooy lu leer il faut avoir le de dire que ne dama doon maase wu bii mais rax na leen mais maa ngi jëkkalu sénégalais yi loolu mooy lu ndax da war a respecté ko doon seqal ba maa bi nga ko doon nga am plaisir boobu da nga ko war a faut pas oublier sa maman la boo xam ne buñ la nee woon salaamaaleykum booy booy tontu maaleykum salaam sa lammiñ day tàkk suuf boo ko se dise nag ñu waxante dëgg kon nag mbooloo mi daal loolu dafa war a leer sénégalais sénégalais yéen laay waxal wax dëgg yàlla xale yi préparé wu leen sur quoi bàyyi leen ki nga xam ne moo doon defar massage mu dem wuy al askan bi ne du moom ñu ba yoon def liggéeyam te yoon dina ci wax li li am boobaa bu kiyee moom il est libre d'être candidat comme il était en 2019 Sénégal kenn moomu ko pouvoir moo ko Macky Sall moomu réew mi dañ ko koo dénk bu ñuy wax te yàlla tax donc problème candidat yi ñëwee ku war a nekk candidat te yoon permettre ko mu war a nekk candidat du Macky Sall mooy désigner ki nekk candidat ak ñi dul nekk candidat loolu yoon yoonu conseil constitutionnel la kon nag loolu dafa am solo en tout cas lii daal laa leen bëggoon wax maa ngi gërëm journaliste yëpp di gërëm suñu yeneen camarade ñi ko dégg ñëw ngeen xam ne daal mbir mi euh, Ousmane Adja aji Sarr ak Ousmane loolu daa war a leer ba ñëpp xam beneen bi ci nekk aussi bu demee ba nga xam ne ne ñi mu doon wax yëpp journaliste yi ah marabout yi gendarmerie police ba léegi day tudd armée loolu aussi ah on verra la suite mais yaakaar naa armée bi Sénégal yi armée nationale la Sénégal yëpp ko bokk ñoo loolu ñu ngi ko ñaawlu te rafetlu wuñ ko. ci wàllu courage Macky Sall nag yàgg naa leen ko wax xam ngeen ko ku taxaw ci kanam Barack Obama jël position bu toll bi mu jëloon moom kan moo ko yóbbaale ci wàllu ay influence wala leen dépassé na loolu. maa ngi gërëm ñëpp di gërëm le ministre Ablaye Seydou Sow di courage am ci engagement am ci détermination am te man Farba Ngom su ma saxal kenn suukar yàlla dogal na tey soo amee légitimité di wax parce que pas que rek da nga nekk ministre engage engagement bopp moo la indi fi nga toog du leneen bokkoo ci ñi sos parti bi bokkoo ci mais Macky Sall daf la jël teg la ci wetam xool la nag xool ci lu bëri xam sa qualité loolu dafa am solo ci wàllu doomu aadama jaar sa jaar-jaar avant de venir devenir ministre da nga am jaar-jaar te sa jaar-jaar yëpp amu ci foo xam ne dañ koy testi wala xool ko di xoolaat un pour cent ñu koy gis ci ay calcul damay waxaale man sama far man far ba Ngom sama làmmiñ nekkul sama biir poos les gens camarades la l'APR il faut que gars yi waaw il faut gars yi jóg du mu tudd tey nag tey tey ñëwuma pour di tudd turu kenn xëy na des moments à venir dina ñoo xam ne dinaa leen cokkaas ñoo xam ne ils ont tous les privilèges am na ñu de am mbir yi bëri te mbir mi jarlu leen dara dinaa ci tudd un à un deux à deux trois à trois ba mu leer nañ te loolu sama xalaatu bopp laay wax et je suis libre mais tey damay wax ak lii jog leen loolu mooy wax ji